verrez que la situation elle est là l'État na jël responsabilité am xoolaat tarif yi yàgg naa ko wax depuis que je suis arrivé en wax naa ko le 2 septembre bés bi ñu may limogé sama dernier discours c'est ça tant qu'on ne fait pas on ne sortira pas def leen le tarif à un niveau pas augmentation mais réajustement convenable mais également xoolaat leen les forfaits au niveau de compensations bu ñu la delloo dërëm ni la ko delloo parce que budget mooy prévision doo prévoir budget 10 milliards nga ñëw ñu jox la set c'est normal que y ait un gouffre bu fekkee nag am na benn apprenti bu ñëw xamul nu muy demee parce que il n'avait que qu'une ligne qu'on appelle le petit train bleu fekk 52 lignes dans l'urbain bokkul Sénégal dem dikk bokkul Afrique dem dikk bokkul AIBD bokkul euh, les conventions mu xaw a réer kooku il n'a pas sa place ici je tiens à préciser que ba ma ñëwee 2014 ba ma fay jóge homme de droit là j'ai respecté la, la loi et parmi les textes figurent les circulaires bu fekkee le premier ministre Boun Abdallah Dionne jël na circulaire ne DG bu nekk il n'a droit qu'à un seul conseiller technique spécial et peut-être un conseiller technique normal parce que mënoo di recevoir ñi ñëpp vous verrez que kii ñëw man deux am conseil technique spécial la amoon benn benn conseil technique normal pour recevoir du social ak yooyu yëpp responsabilité sociétale d'entreprise mais ki ñëw mi ngi actuellement ci neuf conseils techniques pour être plus précis mi ngi ci neuf conseils techniques loolu moo leen di won ni ci neuf conseillers techniques yooyu ñoom ñëpp ils ont rang de directeur c'est extraordinaire ils ont le salaire de directeur li may wax la bu ko kii na porte plainte man fa ñu ma def loolu te ñëpp c'est son clan dans un mouvement bu ñuy naan mouvement des valeurs si on a des valeurs on ne sort pas pour insulter les gens si on a des valeurs doo ñëw di xaste di dugg ci vie privé wu jàmbur yi di naan jabaram mën nga ne j'ai rompu le contrat wax day rafet dama ko dàq si sa ki nga xam ni lu ma fa def defoo ko te il t'a toujours considéré comme son petit frère loolu moo tax ma ne leen si si si conseil technique yooyu alors aujourd'hui am na ci neuf dinaa leen jox léegi liste bi léegi avec leur nom ku nekk ci ñoom salaire directeur leur pour être plus précis ku nekk ci ñoom aujourd'hui c'est la bamboula à Dakar Dem Dikk je vais te boo seetloo bu ne moi j'ai fait une gestion catastrophique boo seetloo il va être ébahi. Hein. J'ai sa déclaration, son premier discours devant le conseil d'administration. Et dans son premier discours, qu'est-ce qu'il dit Dans son premier discours devant le conseil d'administration, nee na ñëw naa gis naa lu musa Diop gis mooy des difficultés benn raison bi mooy un taux d'indisponibilité mooy bus yi bari na yu panne d'accord naa ko parce que ni ma leen woon conditions yi boo amee xaalis fayal nit ñi bu la état bi joxul sa xaalis naka nga dem jënd ay pièces donc il a il a raison mu ni deuxième chose mooy Covid bi rey na dem dikk moo ko bind moo ko liir devant troisième chose retard de versement compensation yi mi ngi nii est-ce wax ne système bi la système système bi ñuy gérer le transport public et à plus forte raison dem dikk gor ci wax ja mais génn di saaga di wax lu ñaaw kooku je pense c'est pas ma culture et je ne vais pas descendre ci niveau am